بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكي جلدي نيجي دمني كوسن برام تبارك وتعالى فسيني ديك أجين تي سن بن تفسير بني عمل أجمع جنك توقتوي تين ورا أنا جين تي سورة زلزلة muy saar woo xam ne dañuy xabaar bis bu ñëwee ak rëng-rëng ya nga xam ne moom la àndal suuf si yëngutu lépp loo xam ne mi ngi woon ci kaw suuf ak li ne woon ci biir suuf lépp génn doom aadama amuk jaaxle di laaj nan ana lan moo xew su boobaa àdduna eh, suuf si kon di xabaar mboolem lu luñ defoon ci kawam ci lu baax ak safaan suñ boroom daldi teewal mboolem mbindeef yi daal di leen di atte ku amoon jëf ju baax ñu indi la ko dara du ci manki ku amoon safaan it ñu indi ko dara du ci manki suñ borom daldi di yool ña muy yool yóbbu leen aljanna daal di mbugal ñamus ña ko soob yóbbu leen eh, sawara loolu mooy tënkub tafsiru suuratu zalzala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 ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاطا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها sunu boroom tabaraka wa taala nee na ida zulzilat bu yëngutoo ida zulzilat bu rëng-rëngee bu tarambalee li ñuy wax tremblement de terre ida zulzilat bu tarambalee al ardu suuf si zilzalaha tremblement ba nga xam ne ma ngi koy def keroog àdduna si di tukki isa zulzilat ndem rëng-rëngi na al ardu suuf si zilzaalaha rëng-rëngam ngoogee xam ngeen ne suuf si ay seconde rek bu ko yëngutoo ay bâtiment yu baree baree baree bari ñooy mabbandoo ñooy yàqu ñooy daanu ay seconde rek dir bu gàtt ci sunu àdduna gii buñ demee ba suñ borom nag nammatukal àddunaam ji nga xam ne suuf si lépp la yëngalandoo benn yoon su boobaa kon dana ñàng lool waaye dana metti lool isa zulzilat bu rëng-rëngee al ardu suuf si zilzaalaha rëng-rëngam googee wa axrajat mu daal di génnee moom suuf al ardu suuf si asqaalaha li nga xam ne moo ko diisaloon li nekkoon ci kaw suuf ak li nekkoon ci biir suuf ñi faatu ak ñi dund liñ fi dencoon ci ay alal yépp wa qaala mu daal wax al insaanu doomu aadama nag maa lahaa ana lan moo ko dal doomu aadama yi di laajante ci seen biir kenn ku nekk di laaj moroom ja naan lu xew ana lan moo ma jot ngir tiit moo xam ne tiit nañu ko ci ñi nga xam ne noonu la suuf di yëngoo fekk ne booba nag bis penc moo na ma taxaw borom bi nee na yawma idin bu kerew gee tu xaddisu dana xabaare moom suuf axbaaraha xabaaram ya sunu borom moom moo koy digal mu xabaare li nga xam ne moo doon xew ci kawam ci lépp lu baax loo xam ne masees na ko fee def wala léppi safaan loo xam ne masees na ko fee def sunu borom dana digal suuf mu wax ko kon suuf yi mboolem barab yi nga xam ne doomu aadama dara fa nekk di def dara moo xam dafay jaamu yàlla moo xam dafay mooy yàlla barab boobee daf koy seere bu ëllëgee bu ëllëgee barab ba day taxaw di nettali la nga xam ne moom lañ doon def ca kawam yow ma idin bu keroogee tu haddis dana xabaare moom suuf axbaaraha xabaaram ya lu tax mu koy xabaare bi anna rabbaka ngir naka sa boroom yow muhammad awxa laha moom moo ko ko waxyu maanaam moo ko xabaar ngir mu xabaare loolu suñu borom moo ko digal suñu borom moo ko digal ne ko lépp loo xam ne masees na koo def ci sa kaw tey na ko wax moo xam loolu lu baax la moo xam safaan la yow ma idin bu keroogee ca bis boobee yasduru dana gonge ku su nit ñi ashtaatan di ay mbooloo yu wuute ngir ñàkk a bokk jamono juñ faatoo ak ñàkk bokk xeetu nit wu ñu doon ñàkk bokk barab yi ñu leen suul boor yu gox bu nekk ay nit dafa pall pale di génn ñu def ay mboolooy mbooloo yasduru naasu ashtaatan ñoom ñëpp ñu gongeku nag dëgmal seen boroom li raw ngir ñoom ñëpp xalsat nañoo gis amaalahum seen jëf yi nga xam ne moom lañ doon jëf fii ci kaw suuf borom bi nee na fa man yaamal képp koo xam ne def na misqaala zarratin lu tol ne zarra zarra mooy li gën a tuuti ba nga xam ne daanaka bët xawu koo mën a gis nga xam ne buñ ko bëggee gis dañuy wut lu mel ne télescope nga teg ko ci ngir door koo mën a gis ndax tuutaayam mooy nga jël li gën a tuuti nga dagg ko milliard dagg dagget na muy tuutee lu toll noonu mooy tolloog zarra fa man yaamal ku jëf nag mithqaala zarratin luy tollook zarra ci ab tuutiwaay xayran ci aw yiw yarahu dana ko gis mooy du sànku loolu suñu borom dana ko ko fay naka noonu wa man yaamal ku def misqaala zarratin lu toll ne zarra charran ci lu ban ba tey yarahu dana ko gis kon suñ borom moom kenn mënu koo njuñ jaaj kenn mënu koo nax loo def ci aw yiw ak lu mu tuuti tuuti tuuti suñ borom du ko sànq danga ko andil ak loo dof dof nag suñ borom du la nax waaye loo def ci safaan lumu tuti tuti tuti tuti sun borom dana ko andi ak lo yaw yaw nak mënoo fexe ba nëbbu ko borom bi neena wa nadacu lmawasina al li yawmi alqiyaama nee bis penc dañuy tek balance yo xamne balance yu mandula la wa nadacu lmawasina al li yawmi qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a duñu togn ben bakan dar lu tuti tuti wa in kaana mithqaala xabbatin min xardalin ataynaa biha nee na donte dee koo xam lam def daa tuuti bay toll ak aw fepp ci xardal du tee dañ ko andi wa kafa bina xaasibiin ñun doy nañ sëkk ci ñi nga xam ne ñoo mën a régler ñi gën a mën a régler mooy yàlla sunu borom tabaraka wa taala fa man yaamal misqaala darratin xayran yara wa man yaamal misqaala darratin charran yara kon dara du sànku kon mbokki jullit ñi saara ngi nii woo xam ne moom itam saara wu raglu la dañu xabaar liy xew bis penc borom bi tabaraka wa taala tàmbalee ko ci bu bis penc dee bëgg am suuf si yëngutu gi muy yëngutu nga xam ne daan rëng rëng rëng rëng rëng rëng comme niñ ko waxe woon suuf si bu yëngoo ci benn barab yëngu fa li ay seconde lu baree fay mabbu lu baree fay yàqu kon nag su maasee moom suuf si yëpp ci àdduna bi ak fu mu mën a nekk lépp maasu yëngutoonoo lépp di trambale su boobaa loola am tiit mu rëy rëy dana ko jural doomu aadama waaye yemu ca suuf di génnee li nekkoon ci biiram ñi fi suuloon tañu tañu tañu faatu woon ci biir suuf lépp suuf gëqaat ko génne ko lépp nekkoon ci ay alal ak li muy bari bari lépp suuf génne ko lu baax lu bon lépp suuf génne ko wa axrajatil ardu asqaalaha mboole yi ko diisaloon yëpp mu génne ko su boobaa doomu aadama bi dana tiit dana ragal dana jàq muy laajte di laajte kenn koy di laajte sa morom maa lahaa lan moo xew tey wa qaala al insaanu maa lahaa borom bi ne keroog la xew mooy suuf ci boppam day xabaare mboolem li xew nag doomu aadama yaa ngi laajtante kenn ku ne ma nga laaj moroomam nan lu xew suuf di leen xabaar fenn fa nekk la fa xewoon ci lu baax ak la fa xewoon ci safaan ndax lan sunu borom tabaraka moom moo ko sant képp koo xam ne kon ma ngay laaj moroomam nan ko lu xew bu dégloo suuf suuf dana ko xabaar li xew borom bi nee na bu keroogee ca bés boobee nag te mooy bis penc bi nga xam ne ca la suuf di yëngutoo noonu keroog ñëpp dañuy dekki génn ci sen bàmmeel def ay mbolo ak ay kurel yu wuté ñen ñi nekk gox bañ joggé ak waxtu wañ faatu won ak seen def yu baax seen def yu bon mu doon ay astatan ay nit yu wuté ay mbolo yu wuté waye nak ñom ñëpp ñinga deggal seen borom nak li yuraw amalahum ngir ñu wan leen nak seen jëfé ñu gis ko li yuraw amalahum bu keraaw gay nak ah ko xam defal nga lu bax lu mu tuti tuti bul tit du sanku da nga ci jot inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin ñi doon rafetal yàlla du sànq mukk seenub yool kon ku doon def lu baax na xam ne lu mu dof-dof suñ borom du ko nax waaye naka noonu kat wa man yaamal mithqaala darratin charran yarahu ku doon def safaan lu mu yewu yeewu yewu munta rëcc suñu borom munta ndax suñu borom lam defoon ci safaan suñu borom dana ko wan bu ko defee nag suñu borom daal di atte jaam ñi ci yërmandeem ña nga xam ne dégg nga ñoom la seeni balance ci yiw wat mu yóbbaleen aljanna ñi nga xam ne seeni i ci seen i balance ci aw ay moo wat ñu dem ca safaan ba yàlla na suñu borom tabaraka wa boole ci ña nga xam ne bu keroogee lañ leen indil lépp yiw lay doon lañ leen di andil ci lu euh, wuuteeg noona suñu borom daf leen koy jéggal ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa mu boole ci ña nga xam ne buñ peesee seen i jëf seen jëf yu baax dafay not seen jëfi safaan هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين